C'est ce que nous a dit que euh, bor bi nga xam itam ko Sénégal ñu gis ni ñoom nous bokkum ñu ñu défendre cette presse que ni RTS Le Soleil et APS ñoo capitalisé exactement bor nous. A à notre grande surprise ñu gis ni APS bien pour cent RTS 28 euh, Le Soleil autour des 10 mais la TFM moo am li nga xam 40 pour cent arfan si li nga xam que moo di bi mu doon benn ko lo xamni ni itam c'est excessif pourtant boobu nul gënoon def benn sortie que ni li bam mu ñu bari yaakaar na que ni TFM du fay alors que ni TFM moy fay mais ministre ba mu daal di publier li nga xam ne que moo di mbir dafa daal di piquer la colère noire des agents euh, du groupe Futurs Médias boral Babacar Fall mu ne na patron précis daal di porte plainte ki nga xam ne que moo di Aliou Sall ndaxte waru ko daal di teg si penc mi ama Boubou Nour sa récente sortie mu ne yi fi wol nañ ko daal di war a mën a waxtaane parce que lépp entre sëñ Fall xam ne mu di ay jafe-jafe cent argent ku amee si bol si wàllu fisc donc ay milliards et donc mën ne wax ni TFM daan woon fay peut-être peut xam nga sëñ Fallu euh, Olof Njaay dafay faral di ne nit ku ne war naa xam boppam nit ku ne war naa xam boppam gis nga boo xamulee sa bopp ci penc mi lañ la lañ la koy xamale ma est-ce que waroon nañ ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw boo gisee ma wax loolu. parce que boo nekkee presse nga nekk patron de presse yow war ngaa mën a xam sa bopp nga bañ a dem ci yenn yi yenn crash yi ak état état moo ëpp doole ko état xam nga jour ma ne la état du nit bi ngay gis nii c'est un appareil état appareil la mais ñoom patron presse yi patron de presse yi kan lañ koy wékkër Ousmane Sonko lañuy wax Ousmane Sonko mo nek derrière le fils ma ñew ma ñew ma ñew ma mo nek ci ginaaw ma buma dag xama ñom dañuy ne Ousmane Sonko nek ci ginaaw fils ke bi Bougane dafa taxaw ne kat juuti dag kat juuti yi ñoo bëgg tas presse Bougane Gueye moo ko wax mo hmm. nek dag kat juuti yi ñoo bëgg faagaagal presse Sénégal du bugan loolu la wax Maïmouna nandour fay un patron de presse lan la wax Ousmane Sonko mo nek derrière le fisc du loolu mo am ñom ñi nek wa groupe futur Médias lan kan lañ ko doon wax c'est la même chose tiraillement entre la presse et comment dire et l'état du Sénégal dama lay wax dama directement ci la publication du rapport par le ministre Aliou Sall comment il s'appelle le ministre Aliou Sall hmm xam nga Aliou publier le rapport des fiscs de la presse Comment nga publier parce que waxtaan Amona en conseil des ministres Je vais vous donner une révélation pour ngeen comprendre ministre contrairement contrairement les journalistes taxaw non patron de presse plainte le ministre ils n'ont ils n'ont rien compris rien. ne Fall mais ils comprennent rien Ils ne di rien. ay ne da rien. xamuñu dara le ministre avant de publier le rapport là ça a été débattu en conseil des ministres. pour Yen yenn dafa jékki Jeki, ministre bi ministre bi dafa am ñu ko yilif vous croyez que il va mon ministre bi dina xëy xëy rek brandi rapport bi ni publier ko vous croyez que c'est comme ça sans l'aval de ses kilifa le ministre Aliou Sall il a des patrons le président de la République il en conseil des ministres en conseil des ministres dañ ko waxtané Ça dit que le rapport là a été classifié pour ministre bi la toile il faut que nous déclassifier ko nous ko carrément Nous avons porté plainte le ministre bu nous avons que le rapport a été déclassifié donc jarul déclassifier ko pour Sénégalais comprendre ce qui se passe nous hmm. Bari, ah. a non il a fallu li am pour sénégalais yi comprendre du dañuy ne nañu leeral sénégalais yi que ça soit la presse que ça soit l' état Sénégal dañoo bëgg lépp leer ci kanam ci kanam sénégalais yi maintenant comme ils sont dans un combat presse bi def na fi journée sans presse ji ko état ne état moo basé wu ci fisc bi pour faagaagal leen ku nekk mu ku nekk mu ngi koy bëgg a jiiñ sa morom presse bi def. décréter journée sans presse du mon fils, c'est fii sëñ fallu dañu il faut que mon l'air sénégalais état étec, xaar journée sans presse bi lan lañ doon wax journée sans presse bi lan lañ doon wax wax na ba wax du am. le fisc neutralise la presse. organiser la journée sans presse dañuy ne le monstre se casse derrière le fisc du loolu la du loolu la ñu patron de presse yi le monstre se casse derrière le fisc Yep, ñu jël ko jiñ ko état état ne tek waxul dara état dem ci conseil des ministres mu attends maintenant problème amna bala balaa sa jomay wax na ni kay foko ñu xolaat presse bi jéem ko ñoŋal jéem xol taxawal assainir ko taxawal presse bi de ba paré appliquer le nouveau code de la presse Jomay jéemoon a déclarer le même nom alors nous dem conseil des ministres les ministres ont jugé nécessaire ont jugé nécessaire pour à la l'antenne des sénégalais il faut que nous déclassifier le rapport là ba pare publier quoi pour sénégalais xam kan y aurait bord état bi kan y aurait bor bor état Sénégal fisc ci fisc bi te ñaata la parce que tant que devenu quoi ñom presse bi ñom sen presse la yor di lëndëmal askan dina non man dañ ma togn lu ñu lu ñu déclaré ni que man moo lool la wara fay c'est faux man waruma fay loolu. Mm, mm. Sénégal ñom patron de presse yi loolu lañ doon bind ci sen presse yi di ko xamal sénégalais maintenant le ministre ils ont dit le ministre de la communication maintenant tu sais qu'est-ce que tu vas faire tu vas publier le rapport là pour sénégalais yépp xam nu mu démé parce que il est temps ci côté bobu lañ nekk dañoo egg foo xamante ne foofu sénégalais war nañu xam bor état bor euh, presse Sénégal ñaata la toll parce que ñoom Macky 40 milliards la déclaré woon du loolu moo am. non ma ñëw <laughs> ma ñëw du noonu chiffre bi du noonu. du loolu maintenant pour sénégalais xam bor bi nu mu demee bor presse nu mu yoroon état. Hmm. nu mu demee ils ont dit le ministre de la communication il faut publier ce rapport là pour sénégalais la ñuy waxal. Parce que la communication doit passer. C'est une fois Ils ont jugé nécessaire de publier ce rapport-là pour Sénégalais. Groupe Futur Média, ñaata la Yorolon, état du Sénégal qui fisc bi des médias ñaata la war fay impôt E-Média ñaata la war a fay impôt la war impôt Le Quotidien ak ainsi de suite ainsi de suite ils ont dit le ministre publier ministre a organisé point de presse publiez. publier mm.

comment dirais-je euh, euh, di corriger politiquement alors que nous, nous, nous. état communiquer ministre de la communication nous, nga publier pour sénégalais alors c'est clair. donc maintenant ils vont porter plainte à l'état au aux milices ont xamuñu. alors alors ma faut ci loolu parce que dès que Babacar Fall. non non non il parle de l'amateurisme. Euh, lu muy wax li euh, exactement euh, donc par rapport à li justement jëm la sortie du euh, ministre si li nga xam modi moo presse bi ak li nga xam nekk moo di tolluwaayu beeg euh, séddale bi ak ni nga xamni tam mom la daal di alors nous euh, allons di ñëw si du côté de la région exactement si kaw spécial qui nga xam nekk moo Babacar Fall ak li nga xam nekk la télévision sur Mika. alors Babacar Fall nak mu mune le président Faye appelle au dialogue avec la presse et le ministre de la communication vient vient de jouer une autre science, séquence euh, sur le même sujet. Pire, il occulte le fait euh, que plus de 50% euh, de cette dette fiscale est attribuée aux entreprises publiques de presse subventionnées. Alors, mon pote la dette fiscale révèle des données personnelles. Sa publication est fortement interdite par la loi, exactement. Alors, de même, du même siège aussi, Euh, Buuba Nuur génn na que ni principay jàkkaarloog ak ay problème euh, du yoon ñu leen di daal di weer si kanamu li nga xam ne que moo di sénégalais yi parce que loolu day mettre exactement lu groupe euh, si benn situation bu inconfortable ak seen ay partenaires yi na xam ni. amoon ñoo pare pour liggéey ak ñoom. ñu ne 40 pour cent TFM amee na ko si dettu ay milliards milliards donc TFM war na fay lu toll si ay milliards milliards te loolu.

ci groupe Futur Média wala ci benen média buy wax après la publication par le ministre ñom ñu weddi ko ñu non non ñun du loolu la ñuy fay ah, mais weddiwuñu ko le ko c'est ce qui est paradoxal Même ñom seen thèse ñom des thèse day ñu confirmer ce que le ministre a dit ou bien ce que le ministre a publié ni que ñom lool la wara fay ci impôt ça vient de le confirmer xam nga xam ma fallu tamit bo may maïda parfois xam parce qu'on on en a déjà parlé dama né Euh, ñoom Babacar Fall lu ñu wax weddiwuñu benn yoon ni que ministre bi lu mu piblier ci ñoom li amul dañoo dëggal kàddu gi ni que ay xibaar yu wër la groupe GFM loolu la war a fay impôt mais ñoom lu ñu ŋàññi ñoom lu ñu ŋàññi le fait que ñu publier ko sénégalais yi xam ñoom loolu la ñu bëggul dañuy ne sutura maintenant ma ñëw ma ñëw ci sutura bi ma ñëw xam nga yow boo bëggee sutura doo dem ci bras de fer avec état boo bëggee sutura ñu suturaal la doo taxaw fii lu nekk nga yekkee ko état yow presse dañoo dem ba presse international di fa ñaawal dara dara Sénégal dama ne ñoom ñoo dem ba l'international di fa ñaawal dara Sénégal di naan non le nouveau président le nouveau régime moo bëgg a tëj média yi moo xoj média yi jaarale ko ci ci fisc bi jaarale ko ci impôt jaarale ko ci lu ne ñoom ñoo dem tilimal der Sénégal ci international bi presse sénégalaise yéen ngeen ne non bu ñu publier seen yéen li ngeen war a fay non non non ñaaw na ba pare lu ñaaw ñaaw na ba pare te ñoom presse bi ñoom ñoo ko ñaawal bu ñaawee tey presse bi moo ko ñaawal hmm. parce que bu fekkee yow da nga am bor da nga am bor bu mel noonu da ngay négocier ak état nga fay ko. wala nga ne ko baal ma ci ma fay mais doo dem dans dans un bras de fer avec l'état état nga ne da organiser sa point de ce journée sans presse état ne ko état ne la d' accord ñoom sax balaa organiser seen seen journée sans presse Avisé à ñu état xanaa kay nga ne état nga nga def ko une mise en demeure. Ah, non non non y'a boo bon état moo alors que nga bañ reconnaître que ni presse da la <laughs> non mais il y' a deux poids deux mesures. Nous avons décrété une journée sans presse Nous avons mise en demeure lance une mise en demeure à l'état du Sénégal ne dans 48 heures bonjour de defulee ou wala qui lii dañuy dañuy dem ci kii dañuy dañuy def journée sans presse. joxe ultimatum. ultimatum après nga déglu état état tontu parce que su ma nee état ñu nekk tey ñu incarné le régime bi ñoom l'État état pour mu leer ci sénégalais mais avons fait ko état ñom dañoo xëy xëyee ñu ne suba ñu dañuy décréter wala mardi wala lundi dañuy def journée sans sans sans sans presse état ne teg di len xol alors yamu ñu ci journée sans presse bi dañoo def journée sans presse ba paré inviter les médias occidentaux ñu bind lu nekk ci Sénégal lu ne lañu bind ci Sénégal ci journée sans presse boobu dé bu yémon fii Sénégal sax mu né mais d'ailleurs dem ba jéegi wala dem ci média étranger yi. mais média étranger di bind lu nekk ci Sénégal. alors d' je suis d'accord accord. du loolu bëgg mu jàll jàll na. à donc bu jàllee bu jàllee ñu ñëw leeral ci manipulation bi parce que la presse sénégalaise est en train de manipuler à l'opinion nationale et internationale ni que état moo leen tooñ dama lay wax di déglu ma bu baax li may wax dama ne presse Sénégal su ma presse Sénégal je parle des patrons de presse parce que Damaï bañ a wax que, si géew su presse Sénégal les patrons de presse d'ailleurs nekk di manipuler l'opinion nationale et internationale ni que état moo leen tooñ état moo bëgg a tëj signal état moo moo leen xoj ci jaarale ko ci fisc bi ñu ni que le monstre se cache derrière le fisc état moo leen bëgg télé état à mon xëpp leen ay ay ay ay ay fisc loolu la ñuy c'est la manipulation maintenant état bu de ba gis c'est que manipulation bi ëpp na lan lay def alors que presse d'ailleurs, ba mu am ci manipulation daanaka kenn nous ko arrêter état à la d'accord maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va publier le rapport on va d'abord déclassifier le rapport des des médias la yu ñu fait fay le fisc lu ñu war fait fay impôt dañ koy déclassifier ba pare ba pare ñu jox l'aval l'autorisation au ministre de la communication mu publier ko on Baba Babacar Fall bu fekkee yéeguñu loolu war nañu ko que xam ni que le ministre là n'a pas fait une infraction ce sont ses pères qui lui ont donné cette autorisation de publier ce rapport là la direction des impôts et domaines nañu dem foofu jooyanti ko vous croyez que le ministre Aliou Sall moom dina deux points def point de presse publier le rapport là vous croyez que c'est comme ça dans un pays sérieux vous croyez que c'est comme ça sans l'autorisation de la de sa hiérarchie gis nga nit bo xamul nga Vous ci presse bi nek journaliste bu mag xamo da ngay dem laccé pour nga xam mais d'autres ont di ne na wooy oh, d'ailleurs GFM va porter plainte GFM va porter plainte contre qui yow journaliste bu am dayo bobu de ci futur bu mel di def liggéey bu mel noonu yow xamoo dem comme yéen da ngeen tàmm di manipuler les gens nga ne d'ailleurs on incite à ce que les chefs les les patrons de presse d'aller porter plainte l'État du Sénégal wala le régime wala euh, le ministre pour la publication de ce rapport top secret qui n'est pas autorisé par la loi c'est ce qu'il a dit Babacar Fall c'est archi faux mooy mooma ñëw mooy mooma ñëw le rapport là ici n'était pas déclassifié le, le, le, ministre là n'allait pas prendre cette autorisation là de publier ce rapport vous croyez que le ministre bi vous croyez que le ministre bi le rapport bi parce que entre temps on lui a donné l'autorisation de publier ce rapport là parce que manipulation bi moo La presse bi mu manipuler ci côté bu ne ci sens bu les patrons de presse au lieu que ñu wax sen euh, euh, journalistes yi orkay ñu wax les agents ñoo salaire war ko ci impôt bi pare la non pas manipuler la convention pourquoi ti grève grève boobu grève journée sans presse pourquoi la convention des jeunes reporters respecté oui, je te pose la question, Fallou. Euh, jeunes respectez-vous les... Voilà. la presse, voilà. Donc la presse, la presse doit fichir, Comment vous pouvez organiser une journée sans presse La convention des jeunes reporters, respectez-vous quoi mo la grève. Grève il faut Ce C'est pas fisc. Fisc bo a fay fisc nga à longueur de journée du wax quoi franchement.